bëggoon naa xam tey jii nii ku xamul Moussa euh, ak kan mooy Moussa lan nañu Moussa mën a xamali si boppam. <coughs> waaw di kontaan si question bi. Mhm. di wax ne maa ngi nuyu tamit ñi nga xamante ne nii ñu ngi may suivre ci internet bi ñëpp. Mhm. xam naa ne tey dinañ toog seetaan émission bi incha allah. Mhm. Moussa nag benn xale la boo xam ne. dafa yàgg bëgg réseaux sociaux. Hmm. yaakaar naa sama copain bi ma àndal nii moom xam na si dara quoi. Hmm. si TikTok laa commencé woon parce que TikTok mooy réseau bi nga xam ne moom la ñuy ëpp la ñuy kii quoi. voilà hmm. ci laa commencé yàlla dogal ma si nekk ndànk-ndànk. ma jigi-jigi ma ne pourquoi pas ma tijji sama seen YouTube quoi. parce que li ma gën a yokk a tax may def ay var si sax maanaam man dama bëgg président Ousmane Sonko mais maîtriser wu ma politique bu baax noonu. mais nag bëgg gi ma ko bëgg ak gis gi ma gis ñu koy daa jaay doole. Mhm. moo tax man ma intéressé wu bu baax ci affaire boobu noonu ci laa tijji samay plateforme ci laa commencé di si nekk. may dem di gis ne nit ñi ñu ngi bëgg li may def au début nag. Mhm. foo laa ko doon jàppee. Mhm. mais li bi ma gisee ne nit ñi ñu ngi bëgg li may def. ma ne nag pourquoi pas ma concentré wu ci gën ci def fu la looloo tax ñu egsi ba fii daal. kon donc ndoxteel li nekkul mm. woon ne vaar yi ngay def tey moom moo la si dugaloon. Mm. no ndorteel bi mën naa ne dama doon def vidéo comme ñëpp ah. comme mm. TikTok nii rek def dugal sa vidéo def lu la saf. Mm-hmm. mais affaire Ousmane Sonko bi nii. ci laa commencé nag di intéressé wu ci politique bi quoi. Mm. ci laa commencé di dugg ci di gën a suivre actualité yi. may gis ay wax yoo xam ne day waroo comme bu kii waxee li tey suba bu mu wax lee. ma it may dajale genre vidéo yooyu di ko dugal. mais nag dama gis ne mu bu baax a baax. ma ne pourquoi pas tamit ma continuer loolu quoi. mais est-ce que nekkul du par exemple Sénégal fii moom d'habitude dañuy wax léegi kuy kuy kuy jaay bëgg mu jar il faut nga tuddu mm. euh, président mm. Ousmane Sonko. Mm. Euh, loolu moo tax tey nga bëgg a nëbb ne genre. loolu moo la poussé à ce que nga nga nga nga dugg di influencer nit yi ci par ak par rapport ak euh, taxawaay bi nga xamante ne nii waa Pastef am nañ ko mm-hmm. euh, loolu moo la poussé à ce que say vidéo nga jëmale ko carrément ci képp ko xam ne rek buggul euh, président Ousmane Sonko mm-hmm. non non parce que man yàlla dafa dogal ne mm. man nit laa boo xam ne man dama yàgg wax ci samay seen YouTube ma ne leen man président Ousmane Sonko dëgg laa gis ci moom moo tax ma topp ko bis bu ma noppee gis dëgg si moom. Hmm. damay taxaw ne leen carrément. Hmm. président Ousmane Sonko mii dëgg laa gisoon ci moom gisatuma ko si moom. Hmm. te man biir na ma ba ba may sàngoo suuf. li ma woon du ma sa changé. mais nag du ñu gis dëgg ci suñu réew ñu am possibilité wu am waxukaay boo xam ne bu ñu waxee nit ñi dinañ dégg. wala ñuy gis nit ñuy lëndëmal loo xam ne ñun am nañ possibilité wu leeral ko. après ñun ñu toog di noppi quoi. bu fekkee ay vie wala ay gem wala yooyu ñun ñi ñuy seeraan. dañ ñu bëgg parce que lu ñu dugg même yenn saa yi ñu dugal ay vidéo yoo xam du doon sax politique ay mm. humour lay doon ay reetaanloo mais dañ ci dañ koy seetaan mm. dañuy liker dañuy commentaire kon ñun mën nañ def video si ci façon bu ñu neexee quoi mais politique bi saa yu ñu defee vidéo rek mooy dañoo gis ku lëndëmal ñun ñu ñëw jël vidéo bi ñëw indi taqale wane ne kii dafa lëndëmal hmm. pour mu leer quoi. Hmm. voilà loolu léegi yow hmm. sa problème ak euh, Abdou Bara Dolly Mbacké euh, gis naa à chaque fois su génnee wax euh, dafa mel ni comme si moom ni muy waxee ak ñàkk dégg français bi. da ko si genre. da koy ñaawal on dirait. non non ma jigéen man man loolu du ma ko def. man du ñaawal nit si si si dara quoi parce que man mii di wax ak yow man sama français sax soriwul. mais nag dama doon nit koo xam man dama mën a mbalak quoi naturellement mm-hmm. noonu laa mel. Mm-hmm. man si Abdou Bara Dolly moom ngay wax suñu daje woon fii tey da ngay naan xanaa kii du yow. Mm-hmm. loolu si vidéo yi lay am quoi maanaam. su weesoo mbalak boobu noonu man du ma du ma ñaawal nit si si dara quoi. comprendre nga parce kenn ku nekk am na fu mu mënee am na fu mu tëlee quoi. mais loolu moom du du du du sama affaire quoi. d'accord léegi <laughs> bu baar amul woon. bu vaar amul woon ñu def leneen parce que li fi nekk bari na la ñun nekkul vaar kese la ñuy dugal quoi. voilà ñun dañuy def lépp boo duggee ci scène bi di nga xam ne ñun lépp la ñuy def quoi. Mm-hmm. dafa fekk ni nag actualité politique bi daanaka moo gën a occupé kii bi. Mm, la toile voilà voilà ci la ñuy gën a def lu ñuy li mm-hmm. ci la ñuy ëpp lu ñuy def ay vidéo quoi. Mm-hmm. mais dañuy def yeneen façon vidéo mm-hmm. tamit. Mm. léegi yow. Mm. da ngaa bokk bi Pastef wala comme ni ma ko waxee tout à l'heure que ni yow Seydina Ousmane Sonko nga sopp da nga dem adhéré ci biir parti bi wala. non man mosuma am carte membre Pastef mosuma sax xamanteeg yenn membre yi nga xam te ne nii dañ leen a ràññee si ci kii bi quoi. Mm-hmm. musuma ci am numéro kenn kenn musuma ci woo. Mm-hmm. man dama gis président Ousmane Sonko indil ñu projet bu leer nañ. Mm-hmm. man ma ñëw taxaw bokk si ñi pare pour soutenir projet projet boobu. mais man musuma bokk si parti politique. man dama naan su si apolitique quoi. parce que man euh, ay dem ay meeting fii yooyu noonu man genre bugguma yooyu koi mais nag li nga xam ne moom la ñu Ousmane Sonko jaay. ñun sénégalais dañ ko war a jënd quoi. parce que moom mooy dafa yor jabar yor doom yor yor yor yor liggéey. yor loolu yëpp li nga xam ne moom la ñuy ut ñit ñun ñëpp moom mu am ko ba pare nangoo ñàkk loolu ndax ñun suñuy intérêt kon ñun tamit buñ goree war nañ koo delloowaat loolu loolu kese moo tax ñu si rey suñu bopp mais bokkuma man bokkuma si benn parti quoi. bokkoo si benn man bokkuma si benn parti. léegi sa mbokk influenceurs yi nekk ci réseau yi ñu seetlu. lu yàggul daa ndaw soosu ñuy wax euh, awus kiti su ma juumul mm-hmm. euh, doon na wax euh, di mbubboo turu man sympathisant Ousmane Sonko laa dama bëgg waa Pastef ñu mm-hmm. jékki-jékki gis mu def benn tournure bu nga xamante ne nii kenn mënul comprendre ñenn ñi di wax ne dañ ko jox xaalis moo tax léegi mu viré dem mm-hmm. seetlu nañ ni sax président Macky Sall dem na fi Dubaï mu dem photo wook moom ñu gis la nga ñëw yow itam mel ni da nga koy gën a ŋàññi ci li nga xamante ne nii moom moom la def est-ce que tamit parfois du ngeen bàyyi nit ki su sentiree que ni peut-être moom fu mu nekk arrangé tu ko mu am liberté wu dem ci beneen camp bi comme yéen ni ngeen amee liberté nekk fu leen neex. xam nga tey man par hmm. man ci sama métier bi may liggéey xam nga euh, réseaux sociaux yi du sama métier quoi. Hmm. am naa métier. Hmm. man tey su may liggéeyal nit. ma gis feneen foo xam ne lañ may fay ëpp na fi ma nekkoon. man damay am fulla ju toll ne ma dem foofu parce ma man damay liggéey pour avancer quoi. comprendre nga. Ouskiti bu fekkee dafa nekk ci patriote yi. mu xëy suba benn ministre woo ko jox ko cinq millions parce que moom moo wax si boppam tudd tudd ministre bi. Mm. mais daf ne monsieur le ministre maa ngi lay sant di la gërëm gis naa cinq millions yi. Mm. ñu tegaat ci deux jours mu changé façon carrément li combat bi nga xam ne si la nekkoon. Mm-hmm. di défendre président maxal am na si ah. droit d' accord. Mm. mais yow ki nga doon wax ne moo baax démb bu ko bonal tey. moom moom buy défendre Macky Sall noo ko defendre quoi. mais tamit di saaga président Ousmane Sonko mi nga xam ne moom la doon défendre démb. Hmm. te leer na ne président Ousmane Sonko Awskuti bi muy dugg si Sonko di dugg si hmm. di défendre président Ousmane Sonko. Hmm, kon si kaso bi mun laa tooñ ba nga war a sa camp. bu fekkee ay partisans am ñoo ko tooñ ñooñu duñ Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ko dara. ba mu war a wëlbatiku di ko saaga. di saaga waajuram di def lu nekk te kook def ko dara. maanaam da lay leer ne kii nekkul woon combat bi la gëm. mais dafa jaar ci président comme li nga ma laaj sànq dafa jaar ci Ousmane Sonko pour am buntu mooy ñu ci baree bari da nga koy gis léegi koo xam ne dafay taxaw di défendre Ousmane Sonko nga xëy suba gisaat ko mu mel ne du woon moom. bari na si ni mu amee si politiciens yi noonu la amee si influenceurs yi. Hmm. mais ñun loolu tax ñoo dugg si millier bi quoi. Hmm. mais nag ku ñu gis nga bëgg a dal ci kaw Ousmane Sonko ñun dangay ngay dal suñu kaw ba pare. Hmm. voilà ñun man moom foofu laa nekk kon daal yéen yow da nga bokk si ñi nga xamante ne mm. nii balaa ñuy jaar si Sonko il faut. ñu jaar nga jaar da ngay jaar sama kaw jàll doo ah. jaar si kawam.